ci jamono yële ñu génn ci xabaar yi ci wàllu CEDEAO nga xam ne moo di jege jege na fukki réew ak juróom yi nga xamee ne ñoo féete soowu jant te bokk koppar yoo xam ni moom la ñu duppee CFA ak IMOA itam euh, ñu waxoon fi nag tey ci atum deux mille vingt jàpp deux mille vingt et un bii ci njeexital la wala ci weeru sulet bi koppar yi nga xam ne moom la ñu wax ECO des na ko tàbbal mu tàmbali di surcule ci réew Afrique yi loolu waxoon nañ ko fi. gannaaw gi yéen a ngi fàttaliku président bu France ba mu demee Côte d'Ivoire ak waxtaan wi mu defoon Alassane Dramane Ouattara ngir soppeeku gu war a jóge léegi nag ci franc CFA bi ñu tudd ko ECO loole gàppaloon nañ ko ci lu gàtt gàtt atum deux vingt et un mi wala ci weeru juillet bi ak yu demee noonu diggante atum deux mille vingt deux mille vingt léegi nag loola soppeeku na soppeeku na ECO bi léegi réew yi nga xamee ne ñoo di fukki réew ak juróom yi nga xam ne ñoo bokk ci waa CEDEAO daje nañu samedi euh, maanaam euh, ci bërki démb ci gaawu ji fële ca Ghana ba waxtaan fa xool ba xam naka la ñuy def ci koppar yi nga xam ni moo di éco bi fan lañ ci toll nañ ko war a mën a euh, liggéeyee waaye nag li ci bette te jaaxal ñëpp mooy ñoom ñëpp ànd nañ ci dàq nañ ko soppim xaalis bi ba deux mille vingt sept ba deux mille vingt sept mu nekk nag mbir moo xam ne mii mu doy doy doy doy waar la ndax kenn foogu ko woon. deux mille vingt quatre boobu nag ca lañ ko dàq ndax ki nga xam ne moo jiite président commission CEDEAO bi di Jean-Claude Cassibrou Jean-Claude Cassibrou moom ma wax loolu gannaaw ba nga xamee ne daje nañu ba waxtaan ñu ne nag léegi gis nañu ne daal am na beneen tërëlin boo xam ne bii ca lañ war a jaar ngir am koppar yoo xam ni moo ne commune lay doon ñu ne kañ la ñu ne léegi yóbbu nañ ko ba deux mille vingt sept bi nga xamee ne président commission boobu wax na ko bu CEDEAO di moom nga xam ne Jean-Claude Cassi la mu ko layale mooy gannaaw ba nga xamee ne Covid bi daf fee jaar maanaam pandémie bi mbas mi njiit réew yi dañoo wax ni daal la ñu yaakaaroon ne sax deux mille vingt deux mille vingt et un lépp di sotti nañ ko teg fi suuf ndax mbas mi li mu yàq ci wàllu économie bari na lool. mu ne nag am na weneen tërëliin wu nu war a jaar deux mille vingt deux mille vingt six ba dem dem deux mille vingt sept foofu xool liggéey bu ñu fiy def ngir éco bi daal di mën a taxaw. waaye nag bu fàttali fàttalikoo naira ndax xam nga naira koppar la yoo xam ni moom la waa Nigéria yore naira boobu dafa nekk ci réew moo xam ne réew mu am kattan la mu am pétrole la mu am économie la di Nigéria ci réew yi féete soowu jant muy CEDEAO bi Afrique de l'Ouest ñoom ne tudd ko dañ waxoon ne daal change bi maanaam naira bi ndax day soppeeku wala du soppeeku suñu ko suñu defee sarf bi ndax dañ ci am lii wala dañ ci dañ ci am lee coow li na kur Euh, te juróom-ñetti réew yi ci des yëpp CFA la ñu yore waaye Nigéria nag tegoon na tànkam ci taabal ji dóor ci ne daal ah euh, sama bi tam fokk nu bàyyi ko xel ndax daal pays anglophone la Ghana pays anglophone la doonte moom laal na ci CFA bi sax waaye naka la ñuy def ba loolu daal euh, ñu kii ko doonte sax kan Ghana am na beneen koppar laal na ci CFA bi donc loolu daal moo indi woon problème yi ban dàqoon ko ba jëmmi jamono. ah léegi nag est-ce que euro bi diggante bi ak naira bu bi ak CFA bii nga xam ne moom gaa yi ne dañ koy bàyyi waaye nag bu ñu fàttalikoo jamono ndikkoon na fi ma ne woon euh, dem ji nga xam ne président France bi dem na ko gis ci Alassane Dramane Ouattara génn ci CFA bi du yomb wala du gaaw waxoon naa ko fi ne du yomb wala du gaaw mën naa am nag mu am laa waxoon waaye gëw ma mu gaaw lool. Euh, njortoon it ne des na ko dàq léegi nag yóbbu nañ ko ba vingt sept ngir soppi xaalis. xaalis bi mooy maanaam soppi tour bi am suñu koppari bopp euh, loolu nag euh, day wanewaat rek ñàkk dooleeg réewu Afrique yi ndax réew yi lu toll fukki réew ak juróom ak yi nga xam ne sax am na ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo CFA te féete Afrique centrale France leen garanti yore seenub xaalis nga xam ne tey jii mbir bi soo ko yóbbul Europe xaalis bi du dox da koy weccee ko def ko or wala nga weccee ko ko ñu jox la ko euro ñoom ñu soppi ko def ko leneen def ko seen banque yi. CFA boobu nga xamante ni tubaab yee ko garanti tey France garanti ko ñun ci suñu bopp réew Afrique yi mënunoo dajaloo sax fipp dóor ci taabal ji ne noo lànk tey lañu ciy génn waaye ña ngay wàcc di taferloo di di euh, pandémie bi boo waxee ñu ne mbas mi fi jaaroon c'est-à-dire que colonisation bi ba léegi moo jeexagul nañu waxante dëgg ndax am na ci lool am na réew yoo xam ni tey Mauritanie gii li muy doyee di doyee di doyee di ndax man Mauritanie moom def maa ñoom len ci sama gis-gisu bopp loolu nag man la engagé li ñuy doyee di doyee di doyee di hmm? eh, am nañ seen xaalis boo xam ne moom lañ duppee aiguille bokkuñu ci CEDEAO te réew Afrique lañ bokk donte sax ñoom nee nañ bokkuñu Afrique de l'Ouest ndax seen i mbiri bopp ak yeneen yeneen i xalaat am na yeneen réew yoo xam ne seen i koppar bopp réew arab yi seen seeni xaalisu bopp lañ yore boo demee hmm, Afrique maghrébine bi bi nekk ci kaw Maroc euh, Tunisie Algérie ak yeneen ak yeneen ana lan moo tax ñun nit ñu ñuul ñi fii ci Afrique de l'Ouest gi mënu ñoom suñ koppar yi donc loolu problème la boo demee Afrique de l'Est gële euh, am na fa seen xaalis boo xam ne seen xaalis bopp la boo demee Érythrée boo demee ba fa ngay dem yeneen réew yi mais Tchad moom ci Tchad li muy am am doole ci CFA bi la bokk maanaam français yi dañ naan suñu xel yi ba nga xamee ne am taxawaayu dóor ci taabal ji ne adada doy sax mënuñu ko fi mu toll lu ne woon deux mille vingt deux mille vingt et ñu dàq ko ba deux mille vingt sept pour soppi éco bi def jóge ci CFA bi dem ci éco ñu yóbbu ko ba deux mille vingt sept man jàpp naa ne loolu ak doyadi